asalaamaaleykum wa Sénégal nuyu naa leen góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa diine kilifa aada ñëwaat naa ci seen émission li xew ci jamono tey nag ma indi loolu leen thème thème bi nag tey day wax ci wujju peccorgo wujju peccorgo maanaam wujju peccorgo boo ko déggee maanaam ñoom duñ ay wujju mais seen ñaari jëkkër yi ñoo bokk ndey ak bay mais ñoom ñaar daal duñ ma ñoom daal doon safara ak caas mel na ñoom ñoo gën a danger sax wujj ñoo gën a danger wujj ñoom ku sa moroom sol dara yaa ngi ko cay xool bët lu sa moroom def nga ne nanga ko def lu mu am nga ne nanga ko am xiiroo bee ŋaayoo bi ñoom daal njaboot gi ràññale leen bu duñ jegante fenn ku si juum ba dóor sa moroomu doom rek kër gi tàkk xuloo bi xuloo bi rek te ba yi baax da nga gis koo xam ne daana jël doomu jàmbur ba xolam sedd nuy tikeyaa te kenn du si dégg kenn du si wax waaye suñ jamono tey ji koo fi dóor danga ko rëccu léegi moom boo dooree doomam rek xul na xale yi dañ leen di ber fii ñoom daal kër gi dañ koo xaajale rek dañ koo xaajale jàmm mënu faa am seen jëkkër yi nag kenn ki amul problème waaye ki ci des man genre mandat la moom ku mel ne yor ndaw doxe ay soxlaam ba ñëw tox na wala naan na sàngara ñëw fekk kii bi ñaari soxna si kër gi tax mu war a arrangé jàpp ko dóor ko ba teppi bët bi taxaw fële naan moo tooñ ñu naan kii de daa àndut ak xelam ànd naa xelam dafa yaroo sagoom bàyyi leen di jël dëgg di ko nëpp nëppal dee leen ko wax ku tooñ nga ne ko yaa tooñ ah moom daf fekk ñaan ñu xuloo xamul nu mu tax muy jàpp kee dóor ko muy bakki su mënta door ñoom ñaar ñëpp kay mu baleen mu arrangé waaye warut a loolu nag muy lu ñaaw. mu jàpp ko dër ko ba bëgg a dee baaxul ba nga xam ba génn ko kër gi sax nag te yow yow jabar ki jabar la ki jabar la ah lii sériewul de lii moom sériewul doxut boo ko mënee ba nga ba ko ah nga dem tux par doyal ñëw naan dangaa wirut ak nit ñi naan kii def yore rab ak benn rab ak yara di ko la jàpp xoolaatal sa bopp bu baax a baax ci li ngay def ñu ne mbokk la ñi naan nañ ko def nii moom teyu ko xam nga rek su ko teyoon du ko def nangam nangam Hmm, ñi naan nan daj chef de village ñi naan nan ko baal ñi naan lii ku jàdd yoon nee ko yaa jàdd yoon waaye man li may joxe nag tey mooy uji peccar ga bi yéen loolu du dara ah nekk si kër gi ngeen mànkoo booloo waaye du ngeen ko def li gën a xaajaloo ngeen di def lii baaxut yéen bëgg ko leen sax borom kër ngay bëgg rey sa bopp a ah, lii moom ñaaw na moom ñoo gën a danseur ak kuy danseur ah dem ba xaajale njël li loolu baaxut ci génn ak kër ci ñaari nit nga xaajale njël loolu mu jariñ ba pason la ah raxas leen xool yi te defaraat xel bàyyi leen li ngeen di def bale seen xel yi ngeen di fooye néegu sëy lëndam na dee leen muñ waaye waxewul ko nii bu la neexee def nii bu la neexee def loolu baaxul yooyu daal ko mën a bàyyi nga ba ko te yéen góor ñi am na si ñenn ñi laay wax am nañ si ñoo xanum taxawaali ba ñëw rek indi turbale gu doy waar nay rafet nag régler leen ku yor sa soxna nga yeddu ko sa néeg wax ko liñ koy wax mu xam liñ koy wax waaye bul doxalee nii bul doxalee di faral kii di bàyyi kii loolu moom bu ngeen ko mënee bàyyi ngeen bàyyi ko te woote jàmm wa salaam damaa bëgg na ngeen di abonné di commentaire di dugg ci commentaire yi di ma tontu ci laaj yi tamit wa